الله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على جزيل نعمائه وجزيل إحسانه أحمده تعالى وأشكره على سوابع الآلائه وترادف امتنائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluhu addaa'i ila llahi bi iznihi wa sirajan munira wa daa'i ila llahi ila maafiratihi wa ridwanihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashaabihi wa atbaa'ihi wa man saara ala nahji alqawim wa daa ila sirati almustaqim ila yawmi ddin wa sallama tasliman kasira ayuha almushahiduna alkiram assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi nga xam ne baaxoo ngeen déglu seen télévision Futur Média ñu ngi leen di nuyu di leen wax jàmm ak xéewal yàlla na ko yàlla sotti si yéen di leen ziyaara xam naa rek di gën a sofar ci balu àq bi xam ngeen ne keroog korite gi macha allahu balante woon nañu ak yéen àq waaye doyul moo tax ñu dellusiwaat tey pour sofaat fi ñu toll woon ci balanteeg yéen àq ñaanal yàlla borom bi subhanahu wa ñaanal leen yàlla borom bi subhanahu wa yàlla na yàlla sotti jàmm fii ci suñu réewum senegal bu ko defee nag ñu nuyu kilifa diine yi nuyu kilifa aada yi nuyu itam ñi nga xam ne seen yaram dafa sutante ñu nekk ci bërëb yi nga xam ne fa la ñuy fajoo ak ñi nga xam ne sax seen yaram dafa sutante waaye ñu ngi ci biir kër yi ñu leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla shifaan laa yugaadiru saqaman wala alaman su ko defee ñu jàll aussi ba ci prison yi ñaanal ñi nga xam ne caabee ngi leen féete ginnaaw di ñaan yàlla na leen yàlla ubbi delloo leen ci seen liberté ñu génn si si jàmm ak salaam di ñaan yàlla dëkk bii di senegal ak mboolem jullit yi fu ñu mun munti nekk yàlla fi yàlla sotti jàmm jàmm ju yaatoo yaatoo yaatu yàlla may ñu nawet bii niñ koy yaakaare nii mu xaw a dëgër te yàlla mun koo yombal say jaam ñu ngi tàllal seen loxo di la wax ne yàlla na nga ñu dottil ndoxu jàmm ndoxu barke ndoxu salaam ndox bu àndul ak benn ay ba lépp loo xam ne yaakaaroon nañ ko ci nawet bu njëkk bi rek nga may ñu ko ci bu mujj bi su ko defee may nuyu nag ñi nga xam ne ñoom laa fi doon toogal muy oustaz Mor Thiam lay nuyu bu baax di la ziyaar di la wax ne la namm naa la wéetal nga ma ak oustaz Assane sama doom di leen ziyaar di nuyu waa kër gi yépp di nuyu njaboot yi di nuyu suñuy kilifa di nuyu suñu boroom kër yi di massaw coono julli gi su ko defee nag euh, mbokk yi xam ngeen ne dañoo génn ci weer bu mag weeru koor muy weer woo xam ne macha allahu taala yàlla baal nañ ci suñuy bàkkaar am nañ ci yaakaar ndax comme nit ñu ko doon waxee rek a ah, ragal yàlla bi nga xam ne yàlla comme dafa wax taqwa zahiran wa batinan sirran wa alanan ittaqullah haysuma kuntum yàlla dafa wax ne ragal leen fu ngeen munti nekk ittaquhu fi kulli zaman wa makan wa fi kulli waqtin wa anin dañ ko war a ragal si bër waaye ci jamono ju nekk waaye ci heure bu nekk comme la'allakum na moo taxoon weeru koor bi ñu continuer ñun tamit di ko waat di ko ñaan yàlla mu mayaat ñu taqwa boobu ragal yàlla boobu comme ni mu ko waxee woon rek ittaqullaha xaqa tuqaatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun ma ciy jaar di ziyaare boroom xam-xam yépp asaatise yi góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwuma kenn ñi ci biir réew mi nag ñi ci bitim réew comme ni ko oustaz doon waxee rek ñu jël nuyoo bi yépp teg ko ci suñu loxo jigéen suñu sœur Adja Astou Fall itam jox ko Binta Màmm mu daal di ñu koy joxal Ramata Diop jox ko waa La Havre euh, Adja Dieynaba Ndiaye bu joxal ma ko waa Oslo mu teg ko ci loxo présidente Adama Ami juuf joxal ma ko Oumou Salam mu séddale ko ñëpp waa Danemark jox ko waa Allemagne jox ko waa Suède jox ko itam yaay Kumba Senghor mu jox ko abi ñoo ñëpp rek macha allah waa États-Unis Mariama Diallo bàyyiwuñu kenn fii nag ci Afrique muy waa Mauritanie ñu leen di ndokkeel jël nuyoo bi yëpp teg ko sama loxo doom Mintaan Diop mu seddale ko su ko defee mbokk yi xam ngeen ne ñoo woon ci fattaqullaaha xaqa tuqaatihi ndax xam ngeen ay la yeween kooru ren gi moom tàngaay moom kenn nettaliwu ko sa moroom guddaay bi itam fii ci réew mi ak ci bitim réew kenn nettaliwu ko sa morom mais teewul alhamdulilahi rabbil alamina nit ñi góorgóorlu nañu ba woor ko am na ñu ko tàmbali eggali wuñ ko am ñu ko eggalee ji fële ca barzaq ñuy ñaan yàlla yóbbu leen ca àjjana ya gën a kawe waaye li ñuy wax rek mbokki jullit yi jullit li ko war dëgg mooy dëggu ngëm yàlla dëggu gëm yàlla nag macha allahu taala mooy nga def sa liggéey yépp mooy topp yàlla ak moytu mooy yàlla ak bàkkaar bu ci topp ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna li kulli qawmin iid ku nekk am nga feet mais jullit bi macha allahu taala dafa war a xam ne bés boo xamee ne góor góorgóorlu na ba mooyu ci yàlla rek bés boobu feet la ci moom moo xam nag muy vendredi samedi dimanche ak lundi mercredi yëpp a ci yem saa yoo xëyee mooyoo yàlla rek ba jant bi sow nga tëdd sa kaw la laloo sa ndeyjoor bi ñaan sa ñaan xëyaat suba waxaat ne alhamdulilahi lazi ahyana baadama amatana wa jaalana min al muslimin santal yàlla xamal ne bés boobu feet la ci yow kon nag alhamdulilahi rabbil alamina bi nga xamee ne feet boobu dafa war a continuer ci esprit yi mooy sa esprit nga raxas ko ba mu set nga xam ne bés boo xëyee rek yow yaa ngi ci jàmm yaa ngi ci salaam yaa ngi ci yéene nit ñi yow mbokk mi nga xam ne yaa ngi jàkkaarloog ñun di seetaan macha allahu taala xam nga ne yàlla ah bés yëpp daf cee def ñu di ko war a topp di ko jaamu comme ni ñu ko sante dëgg la ay euh, weeru koor bi jàll na muy shahran kariman wa maziman sumna nahaarahu wa min layaalihi yàlla baaxee nañu ba nga xam ne weeru koor bi ah génn nañ si alhamdulilah julli nañu guddi yi liñ ci mën suñu kemtalaayu kàttan woor nañu bëccëg yi te loolu yëpp ay effort la woon bu nit ki di góor góor góorgóorlu di ko def parce que xam nga ne tàngaay bi nga yore say ndox yu sedd yore say jus yore say yu baax yëpp te doo ko nga xañ ko sa bopp xañ boobu nga xañoon sa bopp nag koor gi jeex yàlla ne la am na lu may xaar ci yow de dëgg la joxe nga sa muddum koor waaye des na de ñu ne ko lu des mu ne ah bëgg naa nag ku ma gungeel koor gi xam nga macha allah may nuyu kaaw baax di ko ziyaar ak waa këram nee na ma koor gi ñeme na de jarul gunge weer wi ñeme na weer wi ñeme na waaye jar naa gunge ndax yàlla borom bi subhanahu wa taala nee na ku ci woor juróom benn fan ginnaaw weeru koor bi na la wóor ne dafa mel ni àdduna bi yëpp nga woor kon boo wooree fanweeri fan wala vingt-neuf jours te am na ñoo xam ne Sénégal dañuy fay benn bés parce que ku gis wi keroog xam na ne ñu bëri am na ñoo xam ne ñu ngi umoon te dinañ fay benn bés ñi nga xam ne loolu la ñu gëm nañu fay benn bés ñi nga xam ne nag dañoo gëm ne ñoom lundi bi mardi bi la ñu woor xëj na ñooñu fay du leen ci fekk su ko defee nag ñu gungee koor gi dëgg la ñeme na wallaay ku nekk ak yàlla loo xam ne yàllaa ko moom ragalul mais comme moom moom koor moo ne asaw mu lii koor maa ko moom maa ko fayal sama bopp te bu yowmal yi am na benn porte officielle boo xam ne woorkat yi rekk si dugg moom nag moo ñu waxaat ndax moom du mu sa teqalikook ñun nañu nag shawal bii wooral leen ma ci sitta min shawal juróom benn fan ci weeru shawal jotewul ak say bor yaa xam ndax da koy def tegale ko am na ñoo xam ne um nañu depuis démb jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi dinga pare 6 jours wala da nga koy étaler tas ko tous les jeudi ak lundi nga woor ko jotewul mais fay bor bi yàlla may na le 12 mois 11 mois yi di ñëw kon bu fekkee ne shawal bi mënoo ci fay bor woor ci juróom-benn fan gungee ko koor gi jël bor bi nag gàddaayoo ko am na ñuy wax naan waaw kenn du maye te fekk fayoo ah comme yàlla moom mooy joxe te nii la la laaj kon àndal ak ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama yàlla daf ko mus a wax na ko ci alquran wallazina yu'tuuna ma ataw wa qulubuhum wajilla annahum ila rabbihim raji'un aaya bi bi mu wàccee yonent bi sallallahu alayhi wa sallama wàcc si moom mu jàng ko ci saxaaba yi su suñu yaay Aïcha daf ko laaj mu ne ko yow si yow mi yàlla yónni ndax loolu ahum allazina yaznuuna wa yasriquuna wa yashrabuuna ndax ñooñu mooy ñi nga xam dañuy sàcc wala dañuy naan sàngara mu ne ko qaala laa yabnata sadiqi mu ne ko déedéet yow mi nga xam ne yaay doomu Aboubacar Siddiq gis nga yonent bi macha allahu taala ku neexoon wax la xam mu noon na ko wax déedéet yow Aïssa mais daf ko ne déedéet yow mi nga xam ne yaay doomu ku dëggoo ki gis nga wax ju neex jooju waaye yonent bi daal amul morom moo tax yàlla daal. li tax mu tànn ko moom rek moo xam mu tax mu tànn ko xoolal ni muy neexale soxnam laa لا يا ابنة الصديق déedéet yow mi nga xam ne Aboubacar Siddiq mooy sa papa xoolal wax ju neex jooju kon allah ji ak euh, gaañi ñu jàng wax yu neex moo tax mu ne ko walakinnahum allazina yusalluun wa yasuumuuna wa yatasaddaquun wa yaxaafuuna allaa yutaqabbala minhum mu ne ko xam nga loolu ñan la ko yàlla wax mooy aaya bi ma jàng si léegi wallazina yutuuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun mooy ñi nga xam ne dañuy woor dañuy julli dañuy saraxe ragal nañu yàlla mais toujours dañuy am sikki sàkk isa man li may def yàlla nangu na ko isa man koor gi jot naa ci it ko mina naar isa man su ma demee màkk jour arafat yàlla buy joxoñ man lay joxoñ ñaaw njort yooyu pour lan yàlla moo wax ne la baal naa la sa bàkkaar neel ban baal nañ ma di seetuma bàkkaar yàlla moo wax ne ah macha allahu taala yërëm naa la lu tax nga ne yow yërëmu la yàlla moo wax ne jot nga sa bopp ci safara lu tax jotoo sa bopp ci safara lu tax ngay ñaaw njortu moo tax yonent bi ne ah sayyidatuna sayyidatuna Aïcha déedéet ñooñu mooy ñi nga xam ne dañuy julli dañuy woor dañuy saraxe mais toujours ñu ngi ragal na yàlla nanguwu leen laa taqnatu min rahmatillah yàlla nee na man damay baal bàkkaar yépp kon nañu gëm ne yàlla baal nañu suñu bàkkaar yépp waaye nag bu ñu recommencé de yàlla baal nañu suñu ay bàkkaar alhamdulillah ndax innama yataqabbalu llahu min al muttaqin lu tax ñun duñu boole suñu bopp si ñi nga xam ne ragalkatu yàlla yi lañu ah kay ci la ñuy boole suñu bopp wane na ñun dañoo ragal yàlla wane na ñun ñoo dàq julli wane na ñun ñoo gën a rafet koor wane na ñun ñoo gën a baax nit ku baax da am xolu garmi am nopp garmi ni ma déggee sama doom Pape Cheikh Diallo di ko waxe mooy da ngay am nopp garmi nga am xolu garmi nga am loxoy garmi koo gis nga yéene ko jàmm mais nga jàpp ne lu baax lay wax si yow soo rombee ay nit ñuy ree nga ne lu neex la ñuy su ñu nee da rafet lu tax ñu ne da rafet nga ne kii daf may tooñ wala ñu ne la da baax mu ne ah déedéet baaxuma wax ni ko déggee àttee ko noonu bul wut la ci ginnaaw wax moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon la wax ne bu ñu la waxee dara. nee na wax ji na nga ko tourner di ko tourner soixante-dix fois pour rafetal ko bu ñu la saaga woon ndey sax yow jàppal ne saaga bi lu rafet rek la macha allahu taala loolu nag yonent bi def ci yar njabootam te njabootu yonent bi bu ma ko waxee du caaginu ah ñi sant ay dara rek bu ma nag ñoom Chérif Maami ma di ko nuyu de passage ak Tafsir Gueye di leen ndokkeel ci seen takkusaan guddi ko am solo googu ñu defoon fële ca Grand Théâtre yàlla na ci wér topp ñëpp kontaan nañu yàlla nañ ko teewe déwén yu bëri di leen ci félicité lool lool lool lool di leen wax ne yàlla nañ bu déwénee yàlla may ñu temps ba ñu ñëw mun koo fekkee ndax jullit ñëpp kontaan nañu te ñëpp seen xol bég na ndax delloo nañu ñëpp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee nag macha allahu taala bul ne rek man ay dara laa sant sëtu yonent bi laa keneen bokk si ah kay gëmal ne yow sëtu yonent bi xéewal ya mu am yéene na la ci yow tamit da nga ciy am moo tax boo wooree nag juróom benn fan si weeru koor bi si weeru shawal jàppal ne yow mel nga ni ku woor at mi yépp jàppal ne loolu tiyaaba bu la yàlla di fay yàlla defal na ko toujours del gëm ne anna man kaana xaaluhu baada ramadan ka xaalihi qablahu ah wa in aqbala ala allahi fi hada shahri illa annahu sar'ana ma yankusu ala iqabayhi wa yaudu ila almaasi bul gëm ne ah man de woor naa rek mais man gëw ma ne sama bàkkaar yu mag yooyu yàlla baal na ma ko déedéet gëmal ne baal nañ la lépp zéro waaye nag góorgóorlul nag ba yooyu nga doon def avant koor gi pour sentir ne koor gi nangu na Serigne Baye Abdou de passage maa ngi koy nuyu bu baax si Malick nee na pour ñu xam ne koor gi nangu na mooy ñu xool après koor gi nan lañu ñu mel après koor gi ndax macha allah bismillah xam ngeen téléphone bi moom dañ koy ubbi rek bismillah mbokk. dem na waaw euh, yàlla na dellu siwaat ak jàmm ñu wax ne dinañ ubbi ligne bi ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk bitim réew waa Alanso asu seen ñoom bàyyiwuma leen fàttewuma yaayu bébé bébé Nafisa yéen ñëpp ubbi nañ leen ligne bi euh, fu ngeen munti toll ñu ngi leen di nuyu di leen ziar waa Rouen bàyyiwuma leen fàttewuma si kenn macha allahu taala su ko defee ñu xam ne weer bi dañoo war a góorgóorlu def li ñuy wax al ijtirah ma haramallahu wa yu dayya as salaat ndax léegi yow da ngay jël commencé di sànq julli yi commencé dootoo demati si jàkk ji dootoo naafilaati commencé bàyyi alquran bi jëmale ko waat déwén waa mbokk yi ndax loolu wóor na dama lay wax ne na wóorul de nañu continuer alquran ji nañu continuer koor gi altine yeeg jeudi lundi ak jeudi ñu continuer di ko woor di woor ay yaamul yi di continuer di bàyyi lépp lu yàlla borom bi subhanahu wa taala tere rawatina nag macha allahu taala jeunesse bi ndax ñoom euh, bisimilah salaamaaleykum mbokku asalaamualeykum vie ah affaire bi egsiwul ci man de allo. allo waaw. kay yow xanaa da nga da ngay gunge Ousmane Anke. <laughs> waaleykum salaam. tur bi ak fooy wootee. man dama laa sopp rek. da nga maa sopp rek. waaw waaw man nag man nga defe ne est que du man maa la gën a sopp. <laughs> man dama ah waxal ci kaw ma xam ne man da nga ma sopp dëgg. waaw <laughs> ah, maa ngi lay ziar bu baax waaye. sant yàlla koor gi metti rek ren saf lool. sa numéro laa bëggoon. sama numéro bu soobee yàlla léegi dinañ la ko jox. alaaji bi dina la ko jox léegi bu soobee yàlla. Ah, inchaallah. Eh, merci beaucoup. xam naa dinañ ma yokk retour bi pour ma gën leen a dégg xam naa man eh, coono gi moo ma bàyyeegul ba léegi nopp yi ba léegi neexul noonu. kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk moom di wax ne moom a bëgg maa ko gën a bëgg lool waru gan maa la raw fuuf maa la gën a bëgg koo bëgg bëgg na la macha allahu taala euh, yonent bi sallallahu alayhi wa di wax ne bu ñu bàyyi euh, wëlbatikuwaat toppaat bànneex yi. toppaat neex-neex yi neex-neex yi gaa moom kenn terewuñu ko parce que terewuñ la lekk terewuñ la naan terewuñ la solo terewuñ la dem fu baax fi nga doon dem terewuñ la ziyaare ji say mbokk terewuñ la waxtaan ak sa borom kër terewuñ la kaf ak sa njaboot l'islam dara mettiwu ci ak diinu yusrun diine ji dafa yomb bu ko kenn ragal mais nag yi nga doon def ci koor gi di jóg di julli fajar xëdd bi xanaa yi kon xëdd bi rek a taxoon ngay jóg di julli te yonent bi ne rakaata fajri xayrun min ad-dunya wa ma fiha ñaari rakka al fajar moo gën àdduna ak li ci biiram ah kon yow ndax loolu gën gën nga nekk président wu Amérique gën tey gën tey nga nekk président Macky gën tey nga nekk premier ministre yàlla nee na ñaari rakka al fajar moo gën loolu mais loolu lan moo ndax ay nelaw yu yu ñàkk solo yu sew yooyu te loo xam ne du la jaral 10 minutes à quinze minutes du ko jël kon yow jullit bi nga xam ne yaa ngi doon jóg di xëdd yow yaay booy di jóg di yee njaboot gi yow papa mi doon jóg di yee njaboot gi ndax koor gi day jeex nga arrêté ko defe naa déedéet parce que kenn yàlla du ko jox ay kart euh, yu bëri pour waa këram ñuy dem àjjana ñu war a dem firdawsa nga koy wàññi di dugg yeneen àjjana yu gën a suuf yi ndax ñun ñëpp sax àjjana la ñuy dugg moom si loolu c'est sûr waaw bisimilah mbokk asalaamaaleykum waaw maa ngi lay ziar. maa ngi bi ak fooy wootee. Adja Fatou Seye tante mère. ah yaayu jàmbur wallaay ndeysaan. te eh, waay waaw yaay booy maa ngi lay ziar bu baax waay yaay namm naa la. waay eh, waay waay yàlla na la yàlla may fan bu gudd ak wér bàyyi la sunu kanam yaay booy. Ah, amiin amiin <laughs> wallaay li li li ñuy def yëpp yaa ñu ko nàmpatal yaay. ñu ngi lay ziyaar bu baax di la masawu ci naqar bi wàccoon si yow di la jaale suñu rakk jooju te xam ne dinañ fa ñëw de dinañ ñëw de dafa taseeg rek uh, ñu nit ñu taseeg loolu ñu daloon waaw suñu frère yi gaañu woon waaye bu soobee yàlla dinaa fa ñëw ndax yow yaay ju baax nga siise ana sama papa <laughs> naka njaboot gi sama rakk yi mbaa ñëpp a ngi si jàmm wallaay wallaay yaay boo yow yow ku baax nga jërëjëf jërëjëf Cissé jërëjëf xale yëpp a ngi lay nuyu sa njaboot gépp a ngi lay ziyaar jërëjëf jërëjëf Cissé waaye kontaan nañu trop Adja Fatou Cissé centenaire présidente euh, fédération euh, daayira Tidiane yow bu ñu doon lim say mbaax kenn xamul nu mu toll euh, ku baax nga yàlla na la yàlla may gudd fan ndeysaan jërëjëf Cissé waaw mbokk mi bisimilah asalaamaaleykum waaw na nga def maa ngi ziar. maa waaw tur naka la. tur bi maa ngi fooy woote. naka mbokki Touba. waaw Ndeye Fatou man maa la gën a bëgg. bilaay li ngay dëgg la Ndeye Fatou Ndeye Fatou ñaata at nga am. dañuy man nga am. ndey faatu yàlla nañ dund ba nga am téeméeri at ak 16 ans. yu teg 16. ana sa yaay ak sa papa ñu ngi si jàmm. ñu ngi lay ziyaar bu baax ndey faatu. man tamit bëgg naa la de ndey faatu. <laughs> déedéet maa la <laughs> eh, eh, eh, du ma ko nangu man maa la raw Ndeye Fatou nag yow tamit. ah non mais Ndeye Fatou yow yaa may gën incha allahu taala. wallaay ndeysaan eh waay yaa baax waaye xale bi waay. Ndeye Fatou damay jooy de. man man xoolal maa la gën a bëgg. te Ndeye Fatou da ngay tax ma ñëw Touba tey de ah. <laughs> maa ngi ziar maa ngi lay ziar bu baax waaye Ndeye Fatou eh waay kontaan naa <laughs> jërëjëf waay waaw léegi vie dina la ko jox incha allahu yow moom xam naa bu ñu ubbee daara ji rek sama doom yu ndaw yooyu yëpp dama leen di jël si rek daara ji nag moom mu ngi fi rek may waaj rek di waajaat waaye ñaanal leen ma nag mu egg ak jàmm nag ma ma mën a enchaîner nag jàkka ji dafa xat waaw su ko defee ma jël ñoom day faatu ñooñu ak sama doom yu yu sew rek sama mbere mbese gi macha allah ah, jërëjëf nday faatu ñuy nuyu waa Touba yëpp di ziar sëriñ bu mag bi Sidi Maxtaar di ziar sama càmmiñ Cheikh Coro Mbàkke maa ngi koy ziar bu baax ñoom xaadim cuun fàttewuma ko ak ñoom sëñ baaro sëñ baaro laat waa téléphone bisimilah. waaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi lay ziar bu baax waay. tur bi ak fooy wootee. maa ngi wootee ah, waaye yow man maa ngi ziar sama sëriñ bi rek ngay wootee Touba. na ngeen def naka mbokki Touba. ñoo ngi leen di ziar bu baax waaye di leen bége. wallaay ndeysaan yéen a baax. émission bi nga def am wallaay dëgg la dëgg la. kontaan ñun ñoo gën a kontaan. baal nañ ñu leen yàlla nañu yàlla boole baal. yàlla boole ñoog suñu sëriñ bu mag boobu ak soxna laay bu sami suñu maam. yàlla bu ñu namm dara foofu. amiin bu ñu demee àjjana yàlla nañu yàlla wanaleeg sëriñ Touba. amiin amiin. ñu nekk sëriñ Cheikh Ibra Fall. wane lu ñoo ñëpp ñu baax rek ñoom soxna May bàyyiwuñu kenn. kontaan nañ trop. wallaay ñun ñoo gën a kontaan moo tax ñu continuer ak yéen nii. wallaay wallaahi. am na solo yaa ngi yéen a ngi ci gunge koor gi. ah <laughs> eh, eh, eh, xoolal soxna si un mois la nag yow tamit. sawaal bi yëpp la. léegi bu fekkee ne am nga ngànt bu ngànt bi paree rek na nga yàlla ah te nag léegi taw bi ñëw incha allahu taala bu ko defee Touba day sedd guy nag. ah waaw yàlla yàlla nañu yàlla may taw jàmm rek. amiin ma mbokki Touba yëpp waaye waaye alhamdulilah ñuy ziare. ñëpp jërëjëf. <laughs> macha allah ñuy suñu soppe yooyu nekk Touba wallaay ndeysaan bismillah aywa salaamaaleykum. Euh, kooku jotu mu ngi xaw a ci ñuy nuyu waa Touba yëpp di nuyu soxna Fat Mbacke soxna Bousso sa Bali bu sëñ Muntaxa Boussa Bali bu sëñ Soaybu waaw mbokk mi bisimilah. maa ngi sant yàlla bu baax. e waay fekkeel déwén waay. alhamdulilah man it bég naa. amin amin yaa rabbal aalamiina. ah fan nga ñu tase woon. ah waaw conférence bu mag boobu waa TFM organisé woon. <laughs> ñun ñoo gën a kontaan ñun mënuñu leen a fay. amiin yaa rabbal aalamiin amin amin amin yaa rabbal alamin wallaay ndeysaan waaw bisimilah si la jàmm ak salaam eh, kontaan nañu <laughs> alhamdulilah macha allah macha allah ñun tamit bëgg nañu yàlla leen yàlla bàyyi suñu kanam yàlla may leen gudd fan yàlla na la yàlla may biye màkka ren ñu ànd dem màkka eh, dem ca Seyduna Muhammad aywa waaw insha allahu taala man daal fi mu nekk dama ne yàlla ah. damaa bëgg nga may ma rek fukki avion ma gaari ko rek buntu TFM rek naan leen dugg leen dugg leen dugg leen ba mu fees rek ñun naaw rek ne cëpp ca Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla mën na ko yàlla mën na ko du dara ci moom wallaahi yàlla dañ ko yàlla boole. waaw. wallaay ndeysaan ah yàlla na ngeen ñaan nawetu jàmm ak salaam. na ngeen ñaan dëkk bi yàlla def fi jàmm. jërëjëf jërëjëf kontaan naa kontaan naa yaa booy. Oustaz xam naa mu ngi lay déglu moom it ci kanam tuuti mu ngi si rajo bi. waaye la ah, allah. ay waay waay bëgg nga ñu baax. jërëjëf. jërëjëf jërëjëf yaa booy. bëgg naa waay man it. Ah, waaw kay nuyul ma sama rakk yi nekk foofu. wallaay ndeysaan. <laughs> Uh-huh. waaw. Uh-huh. waa salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum kontaan na mbokk fooy wootee ak tur bi. ana mbokki géejawaay ñëpp maa ngi leen di ziar di leen bëggee yal tur bi naka la Néné Sall jigéen Macky Sall ah Adja Néné Sall man xamal lu ma neex si yow ah. léegi nag yow xam nga dafa am ñoo xam ne dañuy wax ne dañuy xëcc ba sonn duñu dugg waaw loolu la léegi nag léegi nag secret bi secret bi nga yore laa bëgg nga joxal ma ko ñoom boomeel ba ñoom Binta Diallo ñoom ñëpp nee nañu seen junni yaa ngi jeex léegi na ñu ne ma nee na sàll moomu xanaa dangeen koy dugal ma ne wallaahi laazim dugaluñ la yàlla xam na ne sa farlu rek ak sa mbëggeel la la yàlla di fayee ak ak ñi may jënd crédit yàlla boo ko ñàkk yow yow xam nga yàlla dafa am ñaari malaaka yu mu wàcce ah, ah, ah. kii day xëcc di jëmale kaw kii di xëcc di jëmale suuf kenn ki da daan day wax naan aati munfaqan xalafan kenn ki naan wa aati mumsakan talafan ah. yow miy génne néeg di jënd sa carte cinq mille fas yéene woo bu dul rek woo Adja Fat Bintou Diop wala Pape Anne waaye soxna soxna nen ne malaaka mi nee na dañ lay chargé sa pochette ba mu fees waaye ki naan ah bu ma ko woowulee du garaaw kooku ne yàlla ne lu mu yor na am tolof tolof yàlla nañ ci yàlla musal ba ma ko doo ko ñàkk doo ko ñàkk. te xam naa xam naa ne bu ci kanamee TFM du ñàkk lu muy def ak yéen yéen fi del kii yi. waaw waaye nag dañoo bëgg rek dañoo mu gën a baax. wallaay ndeysaan yàlla na rees ak jàmm ak salaam. yàlla nañu amaat leneen ndax affaire yi nag dinañ ci continuer de dina am yu baax yuy ñëw. yu neex yu rëy. Euh, ñaan leen nag dañu bëgg xam nga man li ma bëgg rek mooy teg fii avion ci bunt bi naan leen dugg leen dugg leen màkk gàngoo kaay leen dugg kaay leen dugg ñu daal dugg ba mu fees rek ñu wàcc ci Seydina Muhammad jërëjëf Sall Sall ah waaw Ibrahima Sall sama papa jooju waaw wallaay ndeysaan wala ak a baax wallaay wallaay dëgg la maa ngi nuyu wallaay ndeysaan ñëpp ñu lay dégg ñun kay ñoo leen di balu àq jërëjëf Sall jërëjëf Rokhaya Sall ngi lay nuyu bu baax waaw dañuy jënd crédit bu doy ñu seet ndax duñu <laughs> kontaan naa eh, est-ce que yow soxna Marème Faye moo lay jox crédit te yëguñu ko mën ah. ah wala sa càmmiñ ndax comme yaay rek yaay seeru président de la république. <laughs> Eh, eh. macha allah yàlla boo ko ñàkk waaye. yàlla boo ko ñàkk. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf dégg naa waaye sama xol neex na neex na jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. la macha allah am na ku nekk si ligne bi bisimilahi. waa mbokk mi egsi waaw kooku xaw na ñëw bu ko defee rek euh, ñu xam ne ah bisimilah. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yal na yàlla nangu ziyaar. ah koor gi xanaa safoon rekk baal nañ leen yàlla nañu yàlla boole baal. naka nga def yow koor gi mettiwul woon si yow. waa jàll na mais juróom-benn fan yi nag loo ci xalaat gunge bi. waaw dama baax ah mais yow baax nga de. yow fan lañ la yare foo dëkk. ah moo tax yow dëkk gi nga dëkk Touba tax loolu. ah macha allah yow leeru leeru sëriñ Touba baa ngi wëndeelu ci sa kanam macha allahu taala. tur bi naka la. Ngone Mangane. Ngone Eh, waaye soxna Ngoné yaa baax. yàlla na la yàlla fay. bu leen ñu fàtte si ñaan ci dëkk bu tedd boobu ak suuf su tedd soosu. ndeysaan ñaanal suñu néew yi tëdd foofu. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf Adja Ngoné ñun ñoo gën a kontaan saa yooyu dogu bul fàtte TFM ak jullit ñëpp. su su rawatina nag nga nekk Palestine jullit yooyu nga xam ne ñu leen di rey rey yu metti. eh waay ku julli na leen ñaanal yàlla arrêté xeex boobu. bani Israël bi nga xam ne yàlla wax na leen alquran ñu lànk di di ñu sonal rek di sonal jullit ñi yàlla nañu yàlla musal ci banu Israël jërëjëf Adja Ngoné man maa gën a kontaan soxna Ngoné yéen moom xam naa ne il faut que ma ne Serigne seex Thioro Mbacké mu organiser ma dara Touba nag ma ñëw wala soxna Baali rek ma ñëw yendoo ndoog yéen wala TFM ñëw rek ñu daal di yendoo foofu ndax ndax waa Touba nag yéen da ngeen a bëgg TFM TFM bëgg na leen mais yéen it bëgg ngeen TFM yal na leen yàlla fay waay. amiin amiin ñu bokk jërëjëf jërëjëf soxna Ngoné. Euh, macha allah. waa kay nuyul ma ñëpp nuyul ma soxna Baali bu baax waaye Mbàkke Balla Isaak Maaram wallaay jërëjëf. waaw bisimilah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. dinaa la alamaan nag ba pare.

jéem a dugg kóor eh, eh, ñoo ngi jégalu yaa booy. Eh, ñoo ngi jégalu da ngay xaw a sori tuuti télé bi dafa mel ni dafa xaw a desee leer. man la ki sama. sama ne sàmm bu Ndeye Sourang waa ndeysaan ñun eh. ñaan ñëpp ñoo si bokk waaye maa ko si ëppale woon sax Adja maa ngi laa ziar Samb. maa waaye eh, waaye sama sama sama sama mag na la yàlla la yàlla. amiin amiin parce que gannaaw wax wallaay pourtant nag bi ma ñëwee Paris woo naa la ba dañoo jotantewul wallaay wallaay sàmb wallaay sàmb dafa doy waar mm-hmm. ndax da ngeen di wut ci mm-hmm. mm-hmm. la yàlla amin amin amin amin amin waaw waa dina la ko jox waa après waa incha allah maa ngi nuyu xale yëpp ñoom Binta ñoom Soda Soda sama bébé Soda. Euh, ndeysaan papa papa Ibnu ñoom Madou ndeysaan sama doom yooyu namm naa leen wallaay ndeysaan eh waaye kooku magu jaambur la yàlla na la yàlla fay ndey si sa suran fa mu tëdd ca suufu Touba yàlla na ko sëriñ Touba teg ci loxo Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te am nañ ci yaakaar ndax euh, loolu la doon dund. ba yàlla jële ko ci jihaat yàlla na ko yàlla may àjjana ya gën a kawe duñ ko fàtte mukk ba keroog ñu koy fekk yàlla na yéex su ko defee mbokk yi def lu baax rek a am solo macha allahu taala suñu mag jooju aja kinne sàmb maa ngi koy nuyu di nuyu magam yi mbokkal ndey ak baay yépp ak ñi mbokkal ndey di nuyu famille baawoo ci Louga ak mbooleem koo xam ne rek na bu baawo fàttewuma ko bàyyiwuma kenn ku sant baawo su ko defee mbokk yi ñu xam ne àddunaa ngi noonu demal maa ngi ñëw rek la comme ñun ñu fi nekk ni nag ñu góorgóorlu ci jaamu suñu borom subhanahu wa taala comme ni ko yonent bi waxoon rek wala takunu kallati naqadat azlaha min baadi quwatin ankaasa ndax loolu mooy nit koo xam ne mawaasim yi rek mooy nekk sa jaamuwaay lu mel ni bu koor ñëwee nga woor bu aji nga xaaraat ba aji xaaraat ba génne azaka xaaraat ba euh, julli tabaski mooy tax nga dem juma wala julli ayit wala ajjuma ba ajjuma déedéet diina ji toute la journée ne continuation la al istimrariya la mooy da xëy ci wax naa leen rakaatal fajri moo gën ci àdduna su ko defee waa téléphone bi bisimilah yéena ko moom nag waaw yéena moom téléphone yi yéena ko moom bisimilah oh là kooku moom rëcc nañu bu ko defee ñuy nuyu ñëpp rek macha allah taala di leen wax ne yàlla moom nee na koor kese doyul pour ñu jaamu ma sëriñ Bay Abdu nee na pour ñu xam ndax li ñuy woor yàlla nangu na ko après koor gi nan lañu war a mel xaalu naa baad Ramadan waa bisimilah mbokk. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Saliou Rajo Fatou Bintou Diop. xayoo xayoo xayoo xayoo mi ñam. man la Mamadou Diop ah yow an jarani aɗa haala inde ma somi nani dande ma ko ɓerle nde nana so ɗum wona wona wona hoore nde e noppi ɗi <laughs> seydi diop ramata contan ma min mantuma no fewi wallahi minen ɓuuri maɗa gana contan seydi diop wallahi naka waruwa waaw waaw ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay nuyu la. wallaay maa leen raw. waaw maa ngi wallaay ana borom kër gu baax gi sama sëriñ boobu maa ngi koy ziar bëgg fàllu. bëgg bàmba bëgg moom moom xam naa ne dina ma alamaan ndax boobu ba tey maa ngi koy waaj a ziar mu tëba. <laughs> dëgg wallaay Seydi Diop. man maa gën a kontaan. yàlla yokk ma gën a baax yéen kenn gënu leen. ku baax nga. yéen kenn gënu leen. waa kay nee naa. nag sama famille mbaañ ñëpp. famille bi waa kay waa kay jërëjëf ndeysaan ñu ngi lay jaale yow tamit waa mbaañ naa ba yëpp. ñu ngi lay jaale sa mbokk yooyu nga xam ne ñoo wàññeeku ñoom Diop Hamad ñoom ay Foy yaayu Binta Mama di la jaal Ablaye Dieye di la jaal Gorgui Sarr di la jaar Baba Souleymane di la jaar ñëpp rek may mun a dunaa ñu ngi koy jaal ndax ñun ñëpp ko bokk mitit bi moom fépp la tuuru waa jërëjëf jërëjëf Seydi Diop waar waa yëpp ne nañ nag maa ngi leen di nuyu seen dëkk bu neex boobu <laughs> xoolal fi mu nekk bu tàngee rek ma ne leen damay ñibbi France jeex na yéenay sama mbokk jërëjëf euh, su ko defee ndeysaan nuyul ma ñëpp waaye bul bàyyi kenn daayira Tijaan murit yëpp rek maa ngi leen di nuyu ñoom awa ñaaña bàyyiwuma kenn macha allah kooku Ramata Diop rakku jàmbur rakk ju baax ju neex a fekk yàlla na la yàlla fay rakk eh, rakk joo xam ne wax dëgg yàlla ci biir xol bi nga nekk man maa la bëggal sama bopp yàlla na la yàlla fay jërëjëf waaw ah, bisimilah mbokk. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa yàlla na yàlla nangu ziar kooku kan ah yow de yow ku baax nga. ah oh là eh, soxna Arend maa ngi lay ziar yow da baax rek eh yow dama laa fekk nga jàng ba mokkal kat. déedéet yow yaa ma jàngal ana. Uh-huh. man di la gërëm di la sant di la ñaanal. amin amin amin Dia amin Dia si sa uh-huh. loolu moo uh-huh. wallaay Dia dëgg la dëgg la ak <laughs> ana sëriñ bi nag sama sama chéri kooku. man dama xamoon moom moo dem bureau ba. ah moom moo dem bureau ba ndeysaan. waaw ah, ma toog. ah yàlla na leen yàlla may voyages privés yépp feesal. te te te ngeen njëkk a feesal nag yéen laay ñaanal ngeen njëkk a feesal démb rek jamaal ak may tooñ jamaal kon tey nuyu naa la de passage jamaal ja Ousseynou Dia waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf Arend yow ku baax nga yàgg sa borom kër dinañ ko dégg merci beaucoup ma grande merci merci beaucoup euh, Arend Dia nekk voyagiste privé di yóbbu nit ñi màkk di ci def lu baax mook borom këram yàlla leen yàlla fay ki nekk si ligne bi na bismillah asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu. yaawur jamtanni alhamdulillah hayoma hayoma hayoma annene salam ko wona sohna zeynab ala o ko sohna sanji touré noachas ah seydi touré seydi touré wallahi jam tan ni alhamdulillahi mbiɗa welti ha ɓutti ha mi anda ko karatmi en fof mi yernududema mi on ko hebde ko hande allah ñaawi wallahi ndeysan bisimilla ma seydou touré weltima no feewi eko mbatta eko kalta ko yallah jokku balɗe ma amin ya rabbal alamina mbiɗa salminma mbiɗa juuroma mbiɗa salminma kadi inde dahira rabiyatul adariya foof oh, machallah woni présidente um ɗo e nafshat ah. wone dahira he wallay ndeysan mi weltima mi weltinimo hikka eh, rawane nde garɗa ɗo min gari maison maison des jeunes eyi jiɗino min ndema kono allah haajani wallay ndeysan seydi yimɓe ne heewi kay ndeysan seydi yalla yalla weltina mi weltima ko mbatta ko e, e diine o e ko eh, li ngay ñaar ñaar yëpp ñaar yëpp neex na allah. wallahi wallahi on jarama wallahi hay goto wawa mon yobde wallahi min ɓuuri wallahi ndeysan min ɓuuri pourtant noon ɗum ɗo ummi ko noon sotko toon hokkami ɗum commune Tan Diop ɓe Dioro Niass e Pape Diop nawi kam ha famille euh, Tandia kamɓe mbaɗani kam o gowo ɓe hokki kam khadija khadija euh, silla ɓe dokki ɓe ko ɓe <laughs> ko moƴƴuɓe kamɓe ɓornimimi hannde mo naksonnaɓe hannde hannde ko comci mabɓe ɓornimi ɓe jarama no fewi merci beaucoup amin amin amin ya rabbal alamina amin mi weltima mi weltinima nenoyam eyi kay merci beaucoup merci eyi euh, kay a bientôt inchallahu taala machallah aha aha so allah jaaɓi so somin garti hajju tan inchallah mamin garto inchallah on jarama Euh, kay euh, kay euh, macha allah ndeysaan sama mbokki Mauritanie yi nga xam ne ñoo ma abiya tey sax lii ma sol ñoo ma ko jox ñoom waa Mauritanie maa ngi leen di nuyu di leen ziar jaar ko ci sama doom Mintaan Diop macha allahu taala xale bu baax boobu xale bi nga xam ne dafa teral ay bàjjanam respecté leen bëgg leen yóbbu ma si xaritam Khadija Silla Khadija Tanja wala Khadija daal mu ngoogu daal Khadija mu baax yàlla na leen yàlla fay asalaamaaleykum. <laughs> asalaamaaleykum. waaw bisimilah mbokk. yàlla na yàlla nangu ziar. ah tur bi ak fooy woote. ah Ndiaye jaata Ndiaye. man de léegi sax Ndiaye laa sant santatuma Jóob ndax Ndiaye dafa mel ni moo dàq Jóob de. Ah? ana xanaa yow mbokk Fabinta Ndiaye nga borom tabala. yéen a bokk tur moom sama xarit bu baax la. ah macha allah Ndiaye yaa baax waaye yow yaay doomu Seyduna Muhammad. sallallahu alayhi wa oh, jeex na tey dugg nga. ah. waaw. Ah, fan nga dëkkee. Nangaan Samb. liiñ ah. bi liiñ bi doo bu doo bougé tuuti affaire bi xawul leer. leer waaw waaw. da ngay moytu moytul télé bi bu dee da nga jege télé bi danga koy moytu. wala nga wàññi ko ba mu sës ndax li ngay wax neex na ma de. oh bintu Binetou Ndiaye mbaa du ligne bi dafa dafa rëcc. Euh, eh, bëgguma woon Fatou Bintou mi rëcc ma kat waaw keneen ki na ñëw. waaw salaamaaleykum. waaleykum wa rahmatulah waaw mbokk mi kan la ak fooy wootee. Eh, waaw noo tudd. Eh, Fatou Camara mos nañu ah. waaw waaw ndeysaan waaw ay dara sama. kóol sax man waaye kamara kamara. kontaan ci yow nga nekk nit ku woyof nga facilité que daal di taxaw man photo man ma kontaan lool waay ay loolu yéen a ko moom loolu loolu loolu loolu loolu loolu yéen a ko moom. wallaay bu baax a kamara naka mbokki France. mbaa koor gi jeex na si jàmm ak salaam. jeex na ci jàmm ak gis nga lu metti yàggul lu metti yàggul lay lay saan alhamdulilahi rabbil alamin yàlla nañ ko woor déwén mbaa waaye mbaa mbaa mbaa di ngeen gunge nag juróom-benn fan yi ci topp mbaa di ngeen ko gunge alhamdulilahi naka naka njàngum alquran mi foofu yéen ciy góor mhm. ay mu ma si jàppale bu waaw Ibrahima Aïdara waaw maa ngi ah waay waay waaw waaw waaw maa ngi leen di suivre yaa oustaz Anne maa ngi leen di déglu bu baax a baax déglu nga ku baax di soppi nit ñi di koy bu baax a baax a baax kontaan naa lool sama xol tooy na ci yéen wallaay ndeysaan seen télé mhm. dama nekk chômage liggéeyuma mhm. maa ngi leen di suivre maa ngi nekk jàng rek wallaay ndeysaan wallaay Diop. yàlla leen di fay. ñun ñoo gën a kontaan si yéen. <laughs> ñun ñun tamit kontaan nañu si yéen man bu ma leen déggulee sax damay wéet jërë ngeen jëf. wallaay dëgg la Diop. wallaay dëgg la nuyul ma Cheikh Ibrahima Aïdara bu baax nuyul ma ko jërëjëf ñun ñoo loolu moo ñu war loolu ñun ñëpp benn lañu. baax ngeen jëf jërë ngeen jëf. waaw kay eh, waa France yëpp macha allahu taala di nuyu daayira yëpp jërë ngeen jëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw kay à bientôt incha allahu taala. Eh, macha allahu taala may nuyu. wallaay man maa gën a kontaan. <laughs> alhamdulilah ndeysaan wallaay ndeysaan. oh nit ñi yéen daal eh, nit ñi baax ngeen yéen baax ngeen trop. salaamaaleykum mbokk. allo allo salaamaaleykum allo. waaw Fatou Bintou man la waat. waaw yow la Fatou Bintou waaw man yii man gis nga boo doggoon tey damay dox doxu ñaxtu. kon Sonatel tey ba foofu laay dem xeex ak ñoom. waaw. waaw amul benn problème bi vie dina la ko jox. léegi soo ma woowee su dëgëree rek danga nga may def SMS. waaw parce que yenn saa yi ligne bi aussi day xaw waaw waaw. jërë jërëjëf jërëjëf Ndiaye Diatta. kontaan naa. <laughs> waaw bisimilah bi bisimilah aywa keneen ki na ñëw. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi leen sëñ Saliou Badiane waaye Sakura Badiane ñoo ngi ziar bu baax waaye. di la sant bu baax ci diine bi ñu ngi fi taxawee. dëgg ngeen jëf. sant la ci bu baax bu baax du futur média. Mm-hmm. ci diine bi. Mm-hmm. kon ñu ngi leen ci sant a baax day ñaanal sëñ Sidi Muxtaar ñu xoolee Cheikh Khadim. Mm-hmm. yàlla bi te ànd ak ak wér. amiin yaa rabbal aalamiin. li ci li ci waaw. dem ci guub yaa ngi wax tafarraqu wallahi yàlla Alsaan Samba Diop oh, mu ngi lay dégg mu lay dégg Diop juba bu eh, eh. baax a baax amiin lay delloo taraanga boobu ak ñoom maam jërëjëf jërëjëf jërëjëf kontaan naa de nuyul ma waa Touba yëpp macha allahu taala yàlla na la yàlla fay ñu koy ziyaar bu baax macha allah taala mu moom toujours daf ñuy woo sëñ Saliou Badiane yàlla ko yàlla fay su ko defee macha allah mbokk yi xam ngeen ne eh, ah waaw ma jël keneen ki aywa bisimilah yéena ko moom de. asalaamaaleykum. waaleykum waaw. man la Adja Fatou Seck bi Diourbel. iii Adja Fatou Seck fan nga ma réer madame Ka. dama lay yóbbu nga jaayi meew de kon xam nga fàttewuma la. ii Adja Fatou kontaan naa. ah xam nga télé bii moom man dee naa leen ñun il faut ñu cotiser di fayaat yu sunóor ndax ñun xarit yu yàgg yi nga xam ne man ak yow ak ñoom Aminata Touré ak ñoom Mimi. ko Fatou Seck nopp naa la foo nekk. maa ngi jëfee toujours. ana sëriñ bu baax ba. sëriñ baa ngi fi. naka xale yi. ay Fatou Bintou saa yu ma tiibee alxuraan di fa dem ci yow keroog nga xam ne may lay xam en quatre vingt ma lire sax benn araf. wallaay ndeysaan. kenn ma boo ñibbee sa kër rek. waaw. bi def sëriñ bu la jàngal. alhamdulilah rabbil ah, alamina. ba koy sant yàlla. Mm-hmm. di la ko sant ndax roy la. wallaay ndeysaan. Ah, yaa ngi tax ba léegi yal na si yàlla. yow kenn gënu leen yéen man mu baax rek laa xam wallaay yéen ñi kenn gënu leen. jërëjëf. wallaay jërëjëf waay nuyul ma sëriñ bi wallaay ndeysaan waay. sa numéro rek a am. waaw vie dina la ko jox léegi. déedéet déedéet déedéet yëpp ñu eh, kenn du fi rëccati kenn ñun moom bu nu paree benn tour la ñuy def rek jël Mimi def ko présidente bi mu jeex tàkk ndax il faut ñu retrouver waat. suñu suñu suñu suñu suñu quatre-vingt-cinq yi ca Nioro Ndiaye il faut ñu il faut ko ndax li ñu liggéey ci réew mii duñ ko bàyyi mu nax saay. jërëjëf jërëjëf waay. jërëjëf nuyul ma sëriñ bi bu baax. mbaa léegi bàyyi nga di ko laaj gaas allo. ma ne di ko laaj gaz. kon boog sant yàlla jërëjëf waay kontaan naa jërë maa ngi nuyu waa Jurbel yépp macha allah taala ay wa ki nekk si ligne bi bisimilah. bisimilah allo. allo ñoo ngi jéggalu de. ñoo ngi sant alhamdulilah. kontaan si yow. ñun ñoo gën a kontaan si yéen. yal na yàlla nangu ziar te boole ñu ko. amin ñu bokk ko waaye yaa baax. yaa ngi tudd. Doudou Lo. Doudou Lo. waaw oh, yaa baax waay foo dëkk. a gën a nee naa la ñu dal yomb macha allah. wallaay ndeysaan la waaye loolu. dana yàlla fay parce que da ngeen di dundal diine ji mais dundaloo leen diine ji. wallaay ndeysaan jërë ngeen jëf loolu. parce que dama ne état Sénégal yéen état Sénégal bu si ñëpp meloon yéen rek wala déwén déwén Sénégal meloon yéen rek waaye yaa baax. Mhm. amin amin waay. wallaay ñu ngi nuyuwaati waawoon yëpp waaye di ziar sëriñ bi wallaay. jërëjëf jërëjëf loo ah. eh, waay waay waay yaa baax waaye yàlla ko yàlla nangu na nga ñaanal waa réew bi yëpp ñaanal waa Palestine ñaanal ñëpp waay jërëjëf ah, sama mag ji nekk foofu ak Aïda Mbène ah. ñoom ñëpp ñaanalal ma leen ak ñoom Fat Boy Mbaye ak ñëpp bàyyi ma kenn ak Pape Diop wallaay ndeysaan <laughs> macha allah jërëjëf loo jërëjëf loo <laughs> waaw waati waawoon a ngoog waa Touba dugg nañu waati waawoon dugg nañu alhamdulilah bi uh-huh, waaw bu ko defee kontaan nañu di ziar xalifa bi Cheikh Ahmed Tidiane moom nga xam ne suñu papa suñu lépp di di ñaanal ñëpp jàmm famille si Seydi Hadj Malick ñëpp waaye. ak famille Alaaji Dut Jóob Xalil waaw salaamaaleykum. salaam. waaw mbokk mi ak fooy wootee. ah man la Fatou Bintou Adja taala tey na moom tey moom dama happy <laughs> tey moom sama ay xaritu xol ñoo dugg nag moom. ah eh, waaye soxna Yaya Seydi Thiam ñu lay ziar. naka waa ministère. ñëpp maa ngi leen di bëggee di leen bëgg ci sama xol. fan yii yëpp gisante ci tuur bi macha allah xam naa damay guddee. waaw da nga ah wax nga dëgg. dëgg la dëgg la Thiam Seydi Thiam. ah yow yow ku baax nga. ndax ndax yow ba nga nekkee ministre bi. dangaa ubbil bunt yi jigéen ñi waa waa kaal bi. su ñu bëggee gus ministre amul jafeñ-jafeñ ngay def lu baax te ba léegi lu baax loolu yaa ngi ci Seydi caam yàlla na la yàlla bàyyeeg sa sago bàyyi la ak sa njaboot bàyyi la nag rek chaque année nag nga dem ziyaare ji Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nga xam naa looloo lay neex <laughs> yàlla na ko yàlla mottali ñu nuyu ñoom Adja Aïda Fall ñoom Binta Makolo ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu waaw Ndeye Binta barki démb rek mu ma woon ndeysaan di ñoom Mati Mbaye macha allah. waaw finance yëpp maa ngi leen di nuyu. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Thiam. yow kenn gënu la macha allah. Eh, eh, eh, yéen kenn gënu leen macha allah. <laughs> loolu moo ñu war màkk moom ku fa gis sa mbokk rek jàpp ci moom ñëppay dimbalante. <laughs> yaa ko moom yàlla nañ ko yàlla boolewaat yàlla buñ at mu jot yàlla ñu yàlla may lu ñuy demee màkkatal mu karama nag waaw ndax ñun maire yi loolu rek lañ fi dese wax dëgg yàlla soxlaatuñu dara dem màkka rek wallaay chaque année rek ñu dem umra sama yaay ngi noonu Adja Kumba Wali Diagne di soog a jógee umra léegi nag ñun maire yi ku am sa maire daal bëgg mu gudd fan dee ko may billet umra boole ci nag cinq millions ku am sa yaay beneen bu xaw ndaw tuuti nga may ko 10 millions ne ko mu dem màkk dem aji bu ko defee rek ñun mère yëpp ay gudd fan. amin amin macha allah jërëjëf Thiam jërëjëf Seydou Thiam macha allah bég nañu lool di nuyu Adja Yaya Thiam mi nga xam ne moo doon secrétaire particulier wu ministre ku mës a jaar finance rek ci ministère finance yaa nga fay fekk mais mu jàpp ci rek mosul tëjal kenn buntu ndax lépp day jeex yàlla na la yàlla fay jàmm waaw mbokk mi bisimilah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw. man la sa soppi maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi nuyu maa maa ngi lay ziar. waaw. man na gis fi mu nekk sama xol bi. Ah. xam nga man Khadija yi ñooy yaayu Fatou Bintou yi. te yéen Seydouna Mouhamed lu mu amoon rek yéen a ko gënal moo tax ñun ku tudd Khadija rek suñu yaay nga fii nga nekk suñu biir xol. wóor na yàlla Seydouna Mouhamed nee na ku ma am Seydatuna Khadija ma ko gënal. waaw. nga xam allahu akbar. man man daal a ma ne ku a dem damaa ma hmm? ma jox. Hmm. allah fa laa eh, ma ne yaa ngi seen ma ne yaa ngi seen télé. ndeysaan moo xam ne mënuma la ko Euh, soxna Khadija soxna Khadija xam nga xam nga yàlla na yàlla boole ci aju ji ak arafaatu ajjuma bi ñuy wax. yàlla na la yàlla bette bi màkk ñun ñun faatu yi buñ ko amoon tey Khadija yëpp la ñuy boole yóbbu màkk waaye sañ nañoo tàllal suñu boroom loxo ne ko képp ku bëgg a ziyaare ji Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na la ko yàlla yombalal booleeg argent de poche bu bëree bëree bëree bëri jëf waay soxna Xadijatu non di nga dellu incha allahu taala ñëppay dellu. wallaay wallaay wallaay ñëppay dellu. <laughs> di nga demaat ziar bi nga demee ziar ji woon nga sa turandoo. fépp jeex na mu ngoog da delluwaat nag ziyaare waat ko. ñaanal ma nag. incha allah incha allah da dem kenn mënu laa téye da ngay dem. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Seydatuna Khadija jërëjëf Seydata Sey Seydatuna waaye eh, eh, mbokk mi baax na waaw salaamaaleykum. allo bisimilah. allo waaw waaw salaamaaleykum. salaam wa rahmatullah. ay eh, delloo naa la ko. ay eh, waay ba bi. walaay ndeysaan maa la raw. sama doom rek ba ba soo génnee neex la ci xol. ay eh, waay ndeysaan sa yaay baax. jërëjëf waay tur bi yow. tur bi naka la. Fatou Sène. man damaa am doom ju tudd Fatou Sène sax ma nga ca Mbour di sëy. Ah, waaw kon nag mu ngoog xam nga mbuur ak ngapparu benn la wallaay ndeysaan jërëjëf seen maa ngi nuyu waa ngapparu yëpp di nuyu famille alaaji ibrahima saaxo yëpp ndeysaan saaxo ilimaan wallaay ndeysaan eh, naqar la fi bàyyi waaye bàyyiwu fi réer wallaay ndeysaan di nuyu doomam Fat masha allah jërëjëf jërëjëf xanaa bii dafa bëgg jàng alxuraan lool sunu borom ndax maa nattoo nag ma nekk xale ba ni ma nekkee mag. Hmm. mosuma dal alxuraan mosuma dal arab. ndeysaan. léegi nii fi ma toll si juróom fukki at ak juróom. waaw. maa ngi doon commencé dal nag alxuraan. ah alhamdulilah rabbil aalamiina. waaw sunu borom dafa dogal nag sama xel dafa nëx nag. waaw lool yow xam naa ne il faut que di nga ay kiis ak yooyu. waaw mu allahu taala gis nga kiis bi nag. yow moom lu bari dama leen a waxoon ne daal bàyyi naa ko waaye ndax yëfi obala yooyu xewoon rek bu xaw a ragal. xam nga ndox meeg saafara yeeg yooyu. waaye yow moom. Ah. dina am lu ma la deey. waaw léegi da jël sama numéro rek. waaw incha allahu taala dina am loo xam ne boo ko defee. te boole ceeg ragal yàlla. Ah, ah ndax yàlla dafa ne fattaqullah wa yuallimukumullah ku ragal yàlla yàlla jàngal la kon nag yàlla na la yàlla may xel mu ubbeeku allahuma isax sadri bil quran loolu boo ko dee faral di wax bu soobee yàlla di nga mokkal wala qad yassarna al quran li zikri fa hal min mudakkir yàlla nee na al quran ku ko jàng mën ko ndax jafewul jërëjëf jërëjëf jërëjëf seen dañuy conférence nii suñu koñ bi ah ñaari at la ñu amagum daaw ak ren waaw waaye suñu borom dafa dogal ren suñu ko suñu ustaas dama da ngay def benn hadis waaw ma ne ko ah man sama xel daa nag baa dama taxaw ci biir ma ngi dama xam lu may wax déedéet la <laughs> damay jàngal hadis bi waaw ban hadis la woon itaxu itaxu waaw itaxu azuman waaw waaw mun a wattandiku leen tooñ ittaqu zulma fa inna zulma zulumaatun yowmal qiyaamati jeex na ah man tamit maa ngi fi ci télé bi di la tàccu macha allah léegi ah dama la jox saako bi ñëw numéro bi dégg nga. waaw léegi waaw moom euh, vie dina ko ko jox léegi. Ah, waaw ndeysaan eh, waaye fa soxna Fat Seen yaa baax waaye. soxna boobu nag ma nga dëkk kii Thiel ma ngay Maroon. Roqe Maroon ndeysaan. Ah, eh, waay ndeysaan ndax day wóor eh, ah, ñoo ngi ziyaare ñëpp jërëjëf jërëjëf. wallaay jeex na tey jeex na tey yàlla dugal na la jërëjëf seen ñuy ziyaare ndeysaan soxna Fat Seen nga paru nuyuwaale waa nga paru yëpp ñoom alaaji Ousmane Diagne mbokk Khoudia Sarr yi nekk foofu yëpp Khoudia Sarr ca France maa ngi koy nuyu jërëjëf waaye jërëjëf jërëjëf ndeysaan waaw bisimilah keneen ki na egsi maa ngi lay eh, doomu jaambur maa ngi lay delloo ziar Mouhamad Lamine Thiam. waaw. maa ngi lay. yow yow yaay doomu Oustaz Mor Thiam. Euh, ah ku sant Thiam rek Oustaz Mor sa papa nag mu jeex tàkk. xam naa leen. maa la raw Thiam maa la raw. Euh, baal nañ leen di leen balu ñun tamit àq. yéen amal na leen kenn ak yéen au contraire euh, société bi ñoo leen ameel ak waaw parce que chaque jour yéen yi passé lu bëree bëri. Mhm, moo ñu war. donc nag donc bi ñoom ñoo leen ameel ak. waaw ñu leen nañu yàlla boole baal yàlla nañu yàlla boole baal te nangul ñu. Ah, Euh, dama laa bëgg rek mais yow da yàlla tax. wallaay ah man man sama doom yi sama xarit lañu. macha allah mhm. parce que yiw nga yaa ngi yaa ngi wax yow ci yoon siraatal mustaqiim yaa ngi jàngale nit ñi nit ñi nit ñi jëf ay leçon. wallaay yàlla mhm. bàyyi. Mhm. amiin amiin amiin. Euh, te yokk kàttan weeg defar baat bi ba nga xamante ni ñëpp dinañ ci mën a jariñoo. amiin amiin waay amiin amiin amiin Thiam. man. man nag damaa nekkal fii suñuy samay morom yi ñuy wax benn association en tout bu ma doon dimbale waaw. waaw léegi nag association boobu ñoom ñëpp wax dëgg yàlla dañ lay déglu rek di la béyee bu ñu réunion ba sa émission commencé ay waay ndeysaan yéen a baax. waaw di la déglu rek di la di lay ñaanal yàlla yi. Mm-hmm. di xanaa di wax. Mm-hmm. bi ay mm-hmm. sponsor sponsor yi nga xamante ne dañuy def yow ci làmb jeeg yooyu. waaw. damaa yaakaar ni dañoo parce que ku yàlla bi nga xamante ni mm-hmm. mm-hmm. si boo ciy def. man a def sponsor. Mm-hmm. leen wallaay ndeysaan xam naa kilifa yaa ngi lay dégg. jërëjëf Thiam. loolu moom benn appel bu ñoom ñëpp dégg nañ la. <laughs> Euh, mboolem sponsor yi nekk ci yàlla nañu dund ba nga am sa société bopp di ñu di ñu sponsorisé yàlla na la ko yàlla may xam naa ne yow boo ko yoroon defal ñu ko. <laughs> wallaay ndeysaan eh waay yaa baax waaye xale yi waaye yéen a baax. ndeysaan macha allahu taala ñuy nuyu suñu doom jooju Lamine Thiam ca Tiwaawoon ndeysaan ak a baax waaye yàlla ko yàlla may teraanga bisimilah mbokk. waa kay jërëjëf waay caam kontaan nañu yàlla la yàlla may ay milliards yooyu sponsorisé diine jëpp. wallaahi xam nañ ko wallaahi aw ci benn sikki sàkk. jërëjëf yàlla <laughs> bu soobee yàlla incha allah taala amul benn problème <laughs> ñëpp a ngi ñëw wallaay macha allah sant yàlla rek alhamdulilah waaw mbokk bisimilah. Mhm. waa bisimilah mbokk bisimilah Exil. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah waa ju baax maa ngi laa dellu ziar bi. maa ngi si jàmm alhamdulilah. tur bi ak fooy wootee Alaaji. Abou. Abou. Abo Baan. Abo Baan Touba Belel. waaw ana mbokki Touba ñoo ngi lay ziar. ñoo ngi waaw. kay ndeysaan eh waay yaa baax waay. ndeysaan macha allah. ñun ñoo gën a kontaan si yéen. amin yaa rabbal alamin amin bakk sëñ Touba waaye amul moroom. jërëjëf jërëjëf kontaan naa. may nuyu waa Touba Belel yëpp allah. waaye jërëjëf jërëjëf jërëjëf ndeysaan ah, waa mbokk bisimilah Excel. asalaamaaleykum wa rahmatulah. mbokk mi noo tudd ak fooy bi ak kii bi c'est woote ci télévision. ndeysaan ah. macha allah. sa yaay booy ma. kon yëpp yow laay si wa wallaay ndeysaan yaay dëgg la yaay booy neex ma sa dikko neex ma sa waxi neex ma. jërëjëf jërëjëf yaay waa kay jërëjëf xam naa di jël numéro bi. jël waaw waaw léegi ba pare waaw.

macha allah tur tur yooyu yëpp a neex waaye ñoom Ramatoulaye maa ngi leen di ñoom soxna Roqaya di ziar ñoom Ayda ak Mbay Sey ak njabootam yëpp di nuyu waa jamaatu Ibaadu Rahmaan bu Cees ñëpp Mudir Seck bàyyiwuma kenn ak ñoom Zeynabu Diop Penda Mbay wallaay ndeysaan waaw incha allah bu soobee yàlla amul benn problème. jërëjëf waa kay jërëjëf yaay booy. yàlla yàlla nañ ko fekkee jërëjëf man tamit bëgg naa la bëgg naa la bëgg waa dinañ la ko jox léegi. Ah, waa kay vie kon jëlee kooku waa régie dinañ ko jël jox ko numéro bi. waa kay waaw bisimilah bisimilah allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa ñoo ngi sant yàlla bu baax. ñun tamit nax nu kazalika. <laughs> tur bi ak fooy wootee. soxna. ah soxna musli yow gëj nañ laa dégg de. <laughs> soxna musli est-ce duñu taalibe bi du alamaan sëriñ bi. <laughs> wala daf koy de taalibe bi day jégguluwaat rekk ci baat bi sax. soxna mu si ñu lay ziar nag euh, mbokk yi. waa ñoo ngi wootee Touba. waaw soxna mu si nee nañu auditeurs yi nee nañu nga yëkkati sa kaw ndax dañoo bëgg a barkeelu ci dégg la. waa xam naa loolu soxna mu si naka mbokki Touba. ñu ngi sant yàlla bu baax. jërëjëf waay. ñoo ngi soxna mu si affaire baa ngi xaw a kii de bu gënee gën a fort moo gën. ndeysaan soxna musli Mbàkke ndeysaan moom tamit ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaar di ziyaar waa Touba ah, jël keneen ci waaleykum salaam wa rahmatullah waaw maa ngi leen di delloo ziyaar bëgg naa tur bi ak fooy wootee maa ngi ah, yow nag sama sama doomu bàjjen nga sama sëtu bàjjen nga ah looloo xam ne maa ngi nuyu waati waawoon yëpp. incha loo di la nuyu bu baax. Hmm. waaw man maa leen gën a kontaan. Hmm. maa ngi waaw wallaay ndeysaan wallaay démb rek maa ngi bërki démb maa ngi dégg soxna Kala macha allah mbay di di ci wax wax ju rafet. Adja Kala mbay ñu koy nuyu bu baax di ko ziar ndeysaan. ak a baax ziareel ma ko bu baax waaye ak ñoom soxna Nafi ak ñëpp. incha allah incha soxna Umu Xayris. wallaay ndeysaan. wallaay. wallaay si Malick dëgg la dëgg la si Malick ah, waaw waaw waaw wallaay ndeysaan di ziar tamit ku ci mel ne ñëpp yëpp daal doo leen boo limee dañuy yow daal neel rek Seydi Hadj Malick ba mu jeex tàkk rek Seydi Hadj Malick yëpp <laughs> jeex na wallaay bu <laughs> baax na macha allah macha allah. <laughs> macha allah waaye ah, allah di ñaanal borom télé bi. wallaay ndeysaan yàlla ko yàlla defal bi daf ndeysaan jërëjëf déedéet déedéet déedéet dara dëngu ci jërëjëf <laughs> ndeysaan ndeysaan macha allah sëtu Ayja ay daloo ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar di nuyu waati waa woon yépp waa bismillah allo waa salaamualeykum waa tur bi ak fooy woote Xadijatu Tëngéej ay yow Aja Xadijatu maa ngi nuyu waa Tëngéej est que xam nga yow yaay soppe Seydouna Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. bi ñoo bëgg Seydouna Mouhamed. sallallahu alayhi wa sallam. Seydouna Mouhamed sallallahu alayhi moo sopp Xadijatu. eh waay yaa baax waay. foo dëkk si Tëngéej. maa ngi Jokkul. maa ngi nuyu waa Jokkul yëpp. di nuyu Binte Diallo ma ca sanc ba ak soxna Abukan ak sama doomu bopp yi. jërë ngeen jëf waay maa ngi nuyu waa Tëngéej yëpp waay. ñoom Xadi Njuur bàyyiwuma kenn ak Ablaye Kanté sama pèlerin bu baax boobu Ousseynou Dia Jamal Dia Maguette Dem Adja màgget Dem kontaan naa Khadija de naka Tëngéej mbaa yaa ngi waajal yaa ngi gunge koor gi ah noppalu tuuti waa Khadija nag boo noppaloo après di nga ko gunge mbaa waa kay na woor juróom benn fan ci sawaal bi baax na trop ngeen ñaanal réew mi ñaanal président Macky ñaanal waa Palestine ñaan nawet bi ñëw ndax yéen xale yu set ngeen bu ngeen ñaanee rek yàlla da koy nangu jërëjëf waaye euh, Khadija macha allahu taala euh, kon daal li ñuy wax ne bien euh, xam naa ah Khadija coupé wul. waaw allo allo waaw. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa waaw kontaan nañ man maa gën a kontaan. lan la soxla ab tënk Si. oh xayartu xayartu. ki doon wootee mooy sama mag ak sama ay delloo. waaw ndeysaan lay ziar. yow de la ziar waa kër Alaaji Maalik Si sëñ Mansour mooy suñu bàyyi. walaay si daal si da ngay ñaanal yàlla yal na sa fan. amiin yaa rabbal aalamiin. yàlla may ma wér ak wér la. amiin. ci nga bëgg a yegg yàlla na fa nar a yegg ndax naa sopp jamono. <laughs> waaw yéen a baax rek. ndax ku ne jamono di yore yàlla rek xamal ne kooku rek. bu mhm. baax la. wallaay ndeysaan. di gërëm tamit daa ci am gépp. di gërëm tamit di gërëm tamit. da ngay xamal ne fii si gàtt bi de. ndeysaan loolu foog naa ak ku tënk ku la seen Babacar si. jeex na mu ngi lay déglu. amiin amiin yaa rabbal aalamiin kooku cat ko dugg fenn daa baax wallaay ndeysaan amiin yaa rabbal aalamiin amiin wallaay ndeysaan bëgg ku baax ku baax Adja Degen Chimère bëgg nga ku baax ku ku lu baax

maa a teew amiin yaa rabbal aalamiina amiin amiin jërëjëf waay ah, man nag kontaan naa wax ndax waa Tiwaawan yi ñooy suñu xol ñëpp baax nañu waaye ndeysaan eh, ñoom it kenn gënu leen su ko defee may ziyaara ndey Fatou Kebe Adja Ayda jiite ñëpp ndeysaan waaw bisimilah. allo waaw salaamaaleykum. waaleykum waaw. tur bi ak fooy woote. man la Adja Soxna Seck yaay si na bu Seck Diawara. ah ay waay waay waay yow yaa booy maa ngi lay ziar ana sama sœur namm naa ko. waaw dafa voyagé nag. ah dafa voyagé ah lool la lool la. ah maa ngi lay ziar. jërëjëf waaye. waaw amin amin yàlla fay amin amin yaa rabbal alamin wax dëgg yàlla Diop jërëjëf Seck yow wallaay ndeysaan kenn gënu leen kuy ngeen jëf amin amin amin amin amin kontaan bu Zeyna bu wootee nag ma ko nuyul gindi ngeen ñi wallaay teg mhm, day continuer. waaw waxtaan yi day continuer bu soobee yàlla. kon nag dañuy euh, feddalanteeg yéen kóllëre rek waaye incha allah Oussa Mor dina ñëwaat ak Assane. ñu continuer waxtaan yi bu soobee yàlla. jërëjëf waaye waaw Zeynab nee ko namm naa ko. Euh, wallaay ndeysaan wallaay madame Diawara maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaar fa mu nekk wallaay ndeysaan ku baax xale bu baax la jërëjëf may nuyu turandoo bi itam Adja bu sekk madame Dia ah, waaw wallaay ndeysaan jërëjëf jërëjëf jërëjëf Seck dina ko dégg dina ko dégg walla <laughs> wallaay ndeysaan te yéen kenn gënu leen ñu baax ngeen jëf jërë ngeen jëf maa ngi lay jàppale bu nekkee Paris jëkkëram feebar. wallaay ndeysaan li gaañoo wallaay mm-hmm. ah, yàlla. loolu moo ñu war loolu moo ñu war loolu moo ñu war. loolu moo ñu war moo ñu war moom sama jëkkëram jooju Mouhamed Diawara sama doomu ndey la. ñoo bokk Kumba Waly ak Soda Diagne ñoo ko bokk. ak Anta Seye. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. walaay Diop. jërëjëf yàlla fay li nga def ci baax yàlla na ko yàlla fay. amiin amiin yaa rabbal aalamiin kontaan naa ci Diop jërëjëf Diop. amiin amiin merci beaucoup Diop jërëjëf jërëjëf. merci merci Diop yàlla ko dégg déwén. amiin amiin amiin yàlla mel ne rek. amiin amiin suñu jàmm yàlla ci dërëjëf Rasulaay. amiin amiin. waay waay Sénégal ngeen fi wàcce jàmm. amiin amiin waay amiin amiin waay. ndax benn bopp dong la ñu. waaw kenn mënu ko xar ñaar ah? dëgg la. te it ku ku ku ku ku jàng baaxal ba naati. waaw yàlla jàmm rek la bëgg. jalaamun hiya hattaa matla'il fajr wallaay yàlla nañ continuer ba ah, àdduna di tukki amin wallaay dëgg la jërëjëf jërëjëf Seck waaw ma jël xam naa kii mooy suñu mu déntalu kii ndax ñu mën a tàggatoo nag ñaanalante ba beneen àjjuma mbokk mi bisimilah. waaw. la soxla. jox ma ko. jërëjëf. waaw. allo salaamaaleykum. waaw salaam soxna waaw. waa kay Seck. maa ngi lay ziar. alhamdulilah maa ngi bu baax waay. kontaan nañu bu baax waay soxna si. maa sa ndeysaan yéen a baax. dëgg la dëgg la. li moo wane ne njàngaleem Serigne Touba saf na foofu ci biir Touba. ay ah, commencé damay mhm. toog. wallaay ndeysaan. maa ngi ci liggéey sama borom kër. Ah, ko déglu. oh yàlla ko yàlla ah. yéegee ca Serigne Touba mu kawe ma. yóbbu ko ca Seydouna Mouhamed ñu dugg jannatal firdawsa. amiin amiin njaboot gi mu la bàyyee yàlla ci yàlla teg loxoom. amiin na la yàlla may nga génn ci liggéey bi ak mboolem kuy liggéey ñoom Marème Anne ak ñu leen di ñaanal ñoom it. ñu génn si ci jàmm ak salaam jërëjëf. te wallaay dëgg la amiin amiin. amiin incha allahu taala jërëjëf. bu mu commencé daal wallaay ndeysaan wallaay yàlla leen yàlla fay. te yàgg ñu koo defal. amiin amiin amiin. jërëjëf jërëjëf Seck. kontaan naa nuyul ma ndongo yépp ak sëriñ bu baax bi jërëjëf. jërëjëf jërëjëf ndeysaan bu ko defee nag euh, mbokk yi li ñu naan rek lu neex lu doy xam ngeen ne bu doon suñu sago àjjuma ji dañuy xëy ak yéen rek ba fajar ndax duñu doyal waaye nag ñeneen na ngi ñëw ñoom oustaz Pape A na ngi ñëw ñoom oustaz Ndiaga Seck ci jumaa ji oustaz euh, Jili ak oustaz Tayib Socé macha allah ñoom oustaz Abdou Karim Ba ñoom ñëpp a leen di nuyu di leen ziar di leen jottali nuyoo yi tamit oustaz Mor ak sama doom Assane. di wax ne ñun kontaan nañu may nuyu nag sama yaay bopp Adja Ami Ndoye Adja Ami Faye famille Amadou Sy Mbour famille Thierno Baro Mbour famille Thierno Mansour Baro famille Seydou Alhaj Mohamed Seydou Ba to Madina Gounas mbañnaɓe cikkittanaɓeɓe foof mi salminimon mi juurima on mi weltima no feewi Madina Diaƴɓe kadi mi yejjitani ɓe Kanel naɓe Wuro Sidi naɓe to wuuro mbiyam Miyam Euh, masha allah sohna dieynaba gabon naɓe mouritani naɓe mi yejjitani hay goto onon fof on jarama mi yejjitani wicen sa oumou salamata en aissata dioɓe en hawa kane en kamɓe foof kulsum en kamɓe fof mi salminiɓe awa ba awa ba euh, yummum aissata ba awa ba miɗe salminma miɗe juruma suko defe nag man nuyu ñëpp rek ziyar ñëpp la havre rouen poissy évry kourokoron binta mamma ma teg ko si loxoom waa Elbeuf ma teg ko ci loxo Adja Assou waa Oslo ma teg ko ci loxo Adja euh, macha allah Ami Diouf mu teg ko ci loxo Umu Salaam mu nuyu ñoom Binta Daam Faxa euh, ñoom Abi Mbay ma dem ba Angleterre teg ko ci loxo nag yaa Kumba Senghor yaa Kumba namm naa la di la ziyaar di bég torop ci yéen bu ko defee ma dem Danemark teg ko ci loxo Oustaz Gaslo yaayu Abdallah ak Mouhamed maam yaayu Fatima di leen ziyaar yéen ñëpp di leen wax ne waa Allemagne nabu fàttewuma leen waa wiccan euh, nu mu tuddati Sweden may nuyu sama doom ki ne Diop di nuyu Alaaji Dut Diack maa ngi koy ziyaar Alaaji Dut Diack maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa Sweden yëpp rawatina Adja Sey ñoom ñëpp nit ñu baax lañu di nuyu nag waa Sénégal ndax ñun TFM mënuñu leen a fay Youssou Ndour sax mënu leen a fay ndax ca musique baak yeen ba mu indi teleem bi yéen ñëpp ngeen àndandoo ànd ak TFM moo xam ñi ciy liggéey personnel ba ba ci ku gën a ndaw bu doon sagoom télé bi moo ko gën a bëgg sax suñu yaay ajaa Soxna mbubb yaa soxna mbub ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di nuyu suñu yaay yëpp nag teg ko ci loxo Adja Kumba Waly Diagne di ko nuyu nag di ko sargal macha allahu taala eh, ci ñibbisi bi mu ñibbiseeg jàmm di nuyu sama rakk ant Sëy ak yaa Faatu Ndey Kumba bàyyiwuma kenn dem nag ba kër maam Awa Si Sëriñ Diop ma koy nuyu di nuyu ñoom nen ne prof madame professeur ña dugg nag af des nuyu. soxna maam Aysa Cissé mu nuyul ma ñoom seel ñoom Marème Ndiaye Marème Ndiaye euh, dégg naa la barki dee mu ngay nuyoo ñoom euh, Ndey Fall Adja Aram Guèye euh, ñoom Ayda Ñaan bàyyiwuma kenn Adja Seel Guèye waa des yëpp maa ngi leen di nuyu ay Anne maa ngi koy nuyu di ko ma masawu coono bi mu nekkoon di ko wax doomam bi yàlla ko yàlla yóbbu àjjana ya gën a kawe di nuyu nag sama goro Cheikh Mbaye ak yaayam bu Ba ñoom day koo bàyyiwuma kenn ñoom Khadija bàyyiwuma kenn di nuyu nag sama bébé Aïssatou ñaa di ko ñaanal yàlla fan bu gudd ak wér gi yaram leena madame Ada bàyyiwuma ko ak grande sœur am Fat Kiné bàyyiwuma Assu Jongu bàyyiwuma euh, Awa Hélène bàyyiwuma Njanoor sama doomu bopp commissaire Abi Diallo bàyyiwuma kenn di leen nuyu yéen ñëpp di leen ziyaar di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa na nañu xam ne yàlla dañ koy jaamu rek ba mu jeex ndax dafa ne waabud rabbaka hatta yaatiyakal yaqin kon jaamu gi bu mu yem ci weeru koor bi waaye nañu continuer di jaamu yàlla ndax yàlla dana inna allaha lam yajal li amalil mumini ajalan dunal mawt yàlla deful dund gi jaamu bi am fu mu yem da ngay jaamu rek ba keroog bés bi di jeex yàlla na yéex may nuyu asatise yëpp nag di nuyu borom xam-xam yëpp ñi nga xam ne jàppale nañu ci weeru koor bi conférence yi moo xam doomu les fi de policier moo xam waa cité Air Afrique moo xam waa cité Nations Unies nday may ziyaare naa la ziyaare aram Gueye sa présidente moo xam Euh, Adja Dieynaba moom it yaayu Fatima bàyyiwuma kenn moo xam euh, macha allah waa Ngaay fàttewuma leen maire maa ngi lay nuyu bu baax as Diagne di nuyu yi tamit euh, Maguette Wade bàyyiwuma Diadji Sow bàyyiwuma Maguette bàyyiwuma Mbengue bàyyiwuma waa Ngaay ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di nuyu waati waa woon teg ko ci suñu loxo papa jooju di Abdoul Aziz Al Amin mu joxal ñu ko njaboot gi yëpp séddale ko. famille Alaaji du Diop Khalil ni ma ko waxee woon rek jox ko Pape Diop Khalil roqee si Njoro di nuyu nag sama doom Mintaan mi nga xam ne macha allah nee naa moo génn ci tëni bu rafet bi sama doom na koy ñawal ma ko ci HLM Grand Yoff ñuy wax ne daal nañ bokk ñun ñëpp an ñaan yal na jàmm nekk ci Sénégal projet Karim bii ñu nekk yal na ci yàlla sotti ndox mu sedd guy ñoom ñëpp yàlla na ñu génn ci jàmm ak salaam rawatina nag sama chéri koko Mbaye Ndiaye yàlla na leen yàlla may aji ndeela Wade dama koy nuyu di ko ziar di ziar Adja Leena Fall Diagne di ziar waa HLM Grand Yoff troisième tranche sama dëkkandoo yu baax yooyu rawatina nag ma teg ko ci loxo Adja bu Seck mu jox ko Adja bu Seck ñuy nuyu waa Thiès di nuyu waa Mbour ah li ñu joxoon ci waxtu nag jeex na waaye nag waxtaan wi du jeex ndax incha allahu taala ñu ngi leen di préparer yu rëy rëy rëy rëy rëy rëy yal nañu yàlla may dégg ak topp yal nañu yàlla may gudd fan gu ànd ak wér ñuy ñaan rek ñaan bi nga xam ne moom la ñuy tëjee ci du defe naa vie bi jeex na waaw mooy rek ñuy wax naan. وفقنا الله جميعا إلى عمل الصالحات وجتنا بالمنكرات وسبنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وعند الممات إنه سميع قريب مجيب الدعوات الحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله بأجمع جام إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات أعوذ بالله من الشيطان